amul. attire parmi ses invités King Saliou c'est le parieur le plus suivi euh, sur la toile mais aussi bokk na ci ndaanaan yi nga xam ne dañu koy bàyyi xel bu baax a baax parce que liggéeyam bi muy def sénégalais yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax rawatina ni ko artistes yi ak ñi nekk ci showbiz bi di bàyyi xel King Saliou euh, ñu ngi am mbégte bu baax di la wax su ay anniversaire dundal téeméeri at yu toftal téeméer te tàmbali tey ndax Baye Fall bi bi ma gisee euh, sa mbokk yi ñëw tey teew ma xam ni amal nga njëriñ sa gox maa ngi lay nuyu la wax joyeux anniversaire King gën leen ko maa leen gën a kontaan aussi quoi vraiment parce que lii yombul quoi nga woote ñëwal la quoi mais comme li nga wax rek moom amul lu dul say nit quoi voilà moo taxoon tey man xaar ma féete ko donc woo sama nitu démb ak voilà ñu ma xamante ne tey donc bu ko defee ñu féete moo ko quoi donc loolu la quoi. kan mooy King Saliou véritablement pour sénégalais yi xam fu King Saliou bu jugee euh, fan la King Saliou soqee ba tey doon tey King Saliou bi mu doon. waaw king bi moom nekkul loo xam te ni que genre dama ko jël di ko woowee sama bopp dafa nekk loo xam te ni que genre lu ñëw naturel la quoi loo xam te ni que du man maa ko tuddee sama bopp nit yee ma ko tuddee quoi parce que dafa am si domaine bu may yëngu donc euh, ma siy def loo xam te ni que nit yi dañ siy gis seen bopp voilà ñoom ñoo xëy donc euh, mu nekkoon benn groupe WhatsApp bu ma tijji yoon ñu bind si groupe bi genre man saalo rek laa si bindoon en fait ñoom ñu bind saalo bi def si saalo bi donc ma ne pourquoi pas comme ñoom ñoo ko defal seen bopp ñoom ñoo def ba ñoom ñoo dem genre ba sentir ni que voilà war nañ ma wooyee kenn mu nekk lu law waaw ba tey ku nekk di ma wooyee King Saliou. fan mooy jaar nga soqee ko fan nga dëkk fan mooy sa base ak lan nga dund loo jot a jaar si sa cursus scolaire Saliou jàng na wala Saliou ci lan la doon yëngu avant muy doon tey Saliou bi mu doon. waaw. Saliou moom mi ngi nekk benn jeune boo xam te ni que Grand Yoff la dëkk euh, fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yoroo aussi fa laay tiitaroo parce que euh, mënu ma am wala mënu ma mel nu sut Grand Yoff quoi donc euh, voilà jaar voilà si si si si fu nekk en fait comprendre nga jaar naa fu metti jaar naa fu neex voilà comme comme comme ñëpp nañu koy dundee quoi mais benn gëm-gëm mooy ne toujours li ma defoon sama bopp mooy. ak nu mu mënti demee moom bis dina ñëw lépp normal bu baax voilà maintenant maa ngi sant yàlla euh, nooy loolu daal. mais bu dee cadre jaar-jaar moom bon bu ñu koy expliqué parce que euh, mën naa ne que jaar naa fu nekk parce que euh, liggéey naa naa mécanicien laa a yàgg def naa si pendant laa xam ne moom boo ma doon wax sama métier tey moom laa xam ne mooy sama baagante buntu Pikine du benn yoon di ñaar yoon dem jëlee añ pendant sept ans su ma jumul xaw quatre ans daal côté yooyu donc voilà doon xëy bëgg a am cent franc boo ndékkee mu tëla voilà doon xëy pour nga ndékki sax da nga doon dem ba marché Castor euh, avant may dem suñu atelier damay xëy sept heures dem marché Castor donc ñooñ di yeenu foofu noonu ñooñ ñooñ di ndugg euh, ma ma ma teel leen seen saako yi bu ñu duggee ba pare Euh, ñu may ma benn 200 ma demaat si keneen mu dugg may ma benn 300 noonu ma mën a am benn 700 après voilà ma dem xëy donc 700 yooyu moom laay ndekkee 3 jours wala 4 jours voilà mais amoon benn gëm-gëm rek mooy ak nu mu mënti demee xam nga dama gëm ne man damay am man moom loolu dama ko gëm quoi loolu mooy sama gëm-gëm voilà mais tamit tekk mais tamit dama koy teg si lu leer quoi. loo xam te ni que tey fu ma neex mën naa fa ma lu ma neex mën naa def te kenn dina ma lu tax nga def lii wala lu tax noonu laa mel. Serigne Saliou juddoo foo xam ni euh, banlieue la te ku xam banlieue xam ni euh, quartier la bu xaw a bu xaw a doy waar nga doon fa jeune tuxoo naanoo sàccoo euh, defoo lu bon fexe ba tekki doon jeune loolu yombul tentative yi nekk ci banlieue bi naka nga def ba ba ba moytu ko duggoo ci. waa mais xam nga man moom mun naa wax ni ak nu mu mënti demee comme li mu la wax sànq rek samay jaar-jaar. donc sama mère dafa jaar ci samay jaar-jaar lu bëri lu rëy muy sama yaay moom rek laa am donc aw ma lu ko sut bëgguma kenn ku dul moom moom rek laa bëgg foofu laa jël sama xol bi def ko si euh, lépp lu ma am si àdduna moom moo ko gënal lépp lu may wut moom moo tax bu nekkutoon moom man man dara sonn loolu moo tax mu fekkee si si si samay morom wala nga fekk na donc munoo xam ki am ak ku am parce que ni ñuy comporté leen di gën leen gën sol loo xam ne genre bu gisee damay xeeb la quoi voilà mais jaar-jaar bi ak li meer daj ci man donc moo taxoon ma ne man mënu ma def lu dul normal mënuma def lu dul jub mënuma def lu dul nekk nit koo xam te ni genre voilà day tegu si lu leer après lu am ñoo xam ne loolu la yàlla dogal mais comme li ma la doon wax rek man gën a gëm-gëm laa am mooy damay am. noo dundee sa koñ nga doon ndaw yàlla dénk la teraanga nga euh, comme ni ko sénégalais di wax Saliou c'est un jeune millionnaire nga nekk Grand Yoff yàlla dénk la teraanga. Euh, du ñàkk dina am ay noon dina ñàkk dina am ñu la bëgg a xañ parce que ndaw yor alal kooku suñu borom rek moo la mën a sàmm nga mucc donc naka ngay dundee euh, sa biir dëkk sa gox ak teraanga bi la yàlla dénk. waaw comme comme comme li ngay wax sama gars yi seen rek xam nga. yàlla dafa dogal ma. ànd ak ñoo xam ne maanaam samay xarit yoo xam ne genre lañ quoi donc xam nañ ki ñuy àndal xam nañ man maay kan parce que lépp lu may def rek man dafay fekk ma gëm ko voilà mu nekk loo xam te ne lu la si man man du ma forcer lépp lu may dund ak nit dafay nekk loo xam te ne que genre lu leer la quoi donc ñoom nañ ma xam nañ man maay kan donc voilà kon pour na yenn yoo xam ne genre ñoom duñ ko xalaat si man quoi peut-être ku ma xamul moo koy xalaat si man. naan diw nii la mel wala nee la mel ak yooyu noonu genre dina metti nag parce que boo yoree xaalis euh, léppay changé léppay changé mooy genre li nga doon dund dootoo ko dund façon nit yu nekk lay feeñ comprendre nga surtout nga nekk jeune dina am ñu la bëgg dina am ñu la bëggul dina am ñoo xam ne que xaalis ma leen tax a jug ku si nekk ak li nga lii quoi mais man moom maay nit boo xam te ni que genre ak nit boo mënti doon koo mënti doon lu la tax jug Euh, lépp mën naa ko xam mais day mel ne xamuma dara man noonu laa mel nga bëgg ma nga bañ ma nga bëggee ma xaalis nga bëggee ma lii nga toppee ma lii nga toppee ma laa lu mënti doon genre euh, lu la mënti indi si man man dama lay considérer koo xam te genre da ma bëgg parce que man noonu laa mel man mënu bañ nit mënu ma bédd nit xam nga mënu ma jël nit taf ko fële muy xarit ak ku mu mënti doon man képp ku ñëw rek maanaam la fekk nga bàyyi nit nga ñëw si man rek dama lay taf si sama voilà man noonu laa mel quoi. d'accord Saliou c'est loolu sénégalais yi ñoo ko wax da nga koy dëggal ou pas. waaw maa ngi sant yàlla daal <laughs> maa ngi sant yàlla. Ah, en tout cas daal maa ngi sant yàlla. mais naka nga gis naka nga gisee euh, liggéey bi ngay liggéey nga koy dugal ci réseau yi par exemple yenn saa ñu gis Saliou mu yor une vingtaine de millions wala benn benn vingt sept millions wane ko ci réseaux sociaux yi euh, loolu jàpp nga ni cat mënu la ci topp parce que si Afrique la ñu nekk rawatina Sénégal. waa xam nga euh, damay yëngu si wàllu pari sportif te defe naa genre su mu nekk premier nit bu buñ ci gën a ràññee dinaa nekk deuxième nit buñ ci gën a ràññee amaana sax euh, mën naa nekk premier mais du jar may may may nekk di wax quoi mais genre xam nga nit di moom euh, lépp looy wax rek dañuy bëgg nga leen wan ay preuve te man yàlla daa dogal ragaluma fi ma jëm donc lépp lu may wane tamit aussi dafa fekk mu nekk lu ma moom wala loo xam te ni que genre maa ko gagné wala moom ko donc loolu moo waral may génn xaalis bi may wane parce que dama jàpp ne sama alal la ma moom wane ko fu ma neex am naa droit wane ko genre lu ma neex comprendre parce alal la man moom genre euh, maa nekk nit boo xam te ni que amul dara lu may def di si calcul beneen doomu aadama man noonu laa mel lépp lu may def rek dama koy def parce que dama envie def xooluma si lu neex kii wala lu neex kii dama neex rek ma def man noonu laa mel donc loolu waral may parfois may génn xaalis yi may wane pour ñu xam ne kii mooy diw dafay gagné et tout ça jeex na mais bu weesoo loolu jublu ma si leneen quoi. am na pas mag jiit la ci li ngay def mais il il n'arrive pas à maanaam doon ci tey ay millionnaire wala milliardaire euh, comment ça lui fait ba ba doon number one ci ni mu doon en étant jeune ba pare am ci talent di ci di ci am ay millions et de million euh, loolu lan la Saliou talent la war danga dem jàng ji affaire bi. waaw dama fi jaar dama dama dama si yàgg nag. ma dama yàgg si paris sportif mën naa ne que mën naa mën naa genre dem depuis depuis depuis ay 2013 ma jaar si fu nekk jënd si téléphone jaay ko euh, jënd si télé jaay ko jënd si ay dàll jaay ko dàll sax jaay naa ko 3000 pour jouer comprendre nga donc jaar si fu nekk euh, genre mën naax ne maanaam xoslu naa si mais tamit dundal na ma ay bànneex yoo xam te ni que genre. Euh, donc euh, mënuma ko wax en fait mais secret saal bi lenn kese la mooy ndimbalu yàlla ànd ak donc yàlla moom ma suturaal euh, ma am si sens lépp lu ma gée mu normal te waxuma la man mais ñi nga xam te ni que dañ may suivre dañ ci gis seen bopp loolu moom amul demal ma ñoom parce que samay coupon am na ñu muy tax ñu fay ay location am na ñuy tax ñuy jël ñuy joxe ay dépasse donc bëri na bëri na bëri na quoi soxla yi bëri na. te à propos rek loolu genre tax na tey maa ngi dimbale ay nit yu nekk yoo xam ne genre du jaar muy fës quoi mais mënu toog man benn deux jours wala trois jours boo xam te ne dégguma problème boo xam te ne dama koy faj c'est impossible bi bi gën a ndaw nga gagné ko ne oh bii somme bu ndaw la. waaw nag problème bi mooy man moom bu dee bu njëkk. waaw doon naa doon naa doon naa doon naa doon naa doon loolu doon na ma dal mais pour l'instant nii genre. mënu ma jouer loo xam te par exemple euh, daf may fay somb ndaw parce que dama koy xeeb dama koy xeeb su may gagné lu bari laay gagné mais su may perte tamit lu bëri laay perte. somme bi gën a mag waaw. <laughs> ma la seetaan nga ne ma xaw ma 27 xaw ma. non non non romb naa lool somme gën a mag s'il ma xam. waaw romb naa loolu wax dëgg si yàlla bu dee wax dëgg rek ma neexee yàlla ah. 100. 100. romb naa lool non non loolu moom du nekk loo xam te ne genre damay taxaw di wax. soo duggee si sama. lu ko ëpp sax gañ naa ko. semaine bi ñu génn rek gañ naa plus de 467 millions. mais loolu mais ni koy gañee noonu ngay perte gañ ak perte ñoo ànd en fait man moom gis naa loolu. 465 millions. genre par exemple dafa tax maanaam man mënuma gis lu ma jaaxal ci xaalis maanaam nit nu mënti mel lu mënti yore bu doon ay milliards sax gondiwuma parce que dama jàpp ne du dara xaalis du dara. nit yi ñoo ko def problème rek mais du daara nit yi koy réer rek man xaalis jàppee ma ko muy dara du dara. mais Saliou euh, ñu ñëw nag sa sa relation ak artistes yi récemment y a une vidéo qui fait fureur sur la toile mooy bi nga demee si Wally euh, man ma jàpp ni Wally daf la soññ xaw ma ndax dégg nga wax ci ou pas def na la saaliw loo mën a am dimbali sa yaay balaa muy wees rakk jee saaliw noo déggee wax jo waaw loolu dafa nekk wax bu ma kontaan la. wax boo xam te ni que genre euh, tax na ma jàpp ko te mun naa wax ni que soir yi ma ko ensonné di dem moom loolu moo tax. way boobu kon dégg nga way bi ko déggee. waaw parce que genre ba mu may way sax wayul sama yaay mais man maa dem ba ci moom ne ko waale ma ne ko wayal ma sama yaay parce que man aw ma lu dul sama yaay man man soxluma ko ma way man soxluma siiw siiw amuluma benn njariñ comprendre nga mais man maay bëgg di def loo xam te ne chaque jour sama yaay day xam ne kii kat ku ko bëgg la. comprendre nga lépp loo xamante tey su ma lépp lu ma def sama bopp rek ni que su ma ko defee war na sedd xool sama yaay rek dama ko def man noonu si comme ça waaw. relation ak Sali euh, Wally Seck naka la naka la demee parce que Wally du n'importe qui rawatina jeune moo yéeg ci kaw seenam ba koy may xaalis. waaw euh, sama relation ak Wally moom euh, mun naa wax ne que ni mu demee mooy comme sama relation ak yeneen artistes rek parce que mun naa wax ne que genre bu yàlla dogalee tey lu ma dem bay waxaat. par exemple bay bay bay bay dem si ay seeni Wally seeni Bastoun seeni Sidi Diop seeni keneen ak keneen ak keneen euh, benn jëmm la muy ki ñuy wax Sibirou Faye comprendre voilà voilà mélanger Bastoun mën naa wax ni que genre moom si dugal xam nga man moom ay affaire mu dem si ay concert sax nekkutoon loo xam ne sama mbir la parce que man dama dama làqatu woon ba mu ëpp mais xëy na euh, lu yàlla dogaloon dafa war a am mu am et tout ça loolu la mais nekkutoon loo xam ne que man sama dund la woon parce que lépp boo ko xoolee si at bi ñu weesoo ak at bii la lépp jëmb ji ñu naan Sibirou Faye moom moo moo tax ma ma dund ko en fait parce que moom ma si poussé xam nga moom ma wan xam nga genre bu ma demee tey bay mën naa ne ko ñu bëri xam ma grâce à moom la quoi vraiment waaw. nga nekk en relation ak wax yooyu. seen benn vidéo. non non bàyyil wax yooyu kooku du ma wax si waxam quoi parce que gis nañ anniversaire am am ku ko indil bague fiançaay ñëpp di def hashtag Saliou la ñi naan Saliou moo ko yónni euh, anniversaire am cadeau yooyu donc yow jot na tey nga teggi tuuma ne du man sénégalais xam ne du yow. non du ma wax si kooku man ki may ki may ki may nekkal ñëpp gis nañ ko donc euh, sànq bañ may souhaité gis nañ ko voilà mais mënu ma wax si kooku vraiment. lan nga defal sa yaay ci ci ci sa alal. rek sa xol sedd si yóbbu màkka euh, ak tabaxal kër wala jëndal ko oto lan nga defal sa yaay nga xam ni say jii sa yaay kontaan. waa sama yaay moom bu dee lu ma ko defal pour mu kontaan moom loolu moom su ma koy lem genre doomu jege parce que chaque jour mu ma ni que maanaam xolam mi ngi sedd si waaye kanta lu ma ko defal ba xolam sedd donc su ma nee dama koy wax moom wax dëgg si yàlla damay wax lu ma neex parce que li ma ko bëgg a defal dëgg-dëgg defaluguma ko ko comprendre nga defaguma si sama yaay lu war a mën a tax ma ne. defal naa ko loo xam te ni que tey sama xol mën a sedd parce que genre des na des na pour man su ma yëkkati woon un milliard jox ko sax des na des na quoi sama yaay lépp lu ma def si moom rek defuma dara li des moo parce que aw ma ko dul moom man sama yaay la am waaw. yaa ngi yaa ngi ci xalaat yi investir taxawal ay entreprise jël ci doomi réew mi ñu liggéey parce que ci li nga nekk nii ñaan nga yàlla génn ci nekkaat ci yeneen domaine parce que yaa ngi bàyyi xel loolu. dafa nekk loo xamante ni que lu ma bëggoon la lu ma gëmoon la ba may am 13 ans laa commencé def 2013 comprendre nga donc euh, ma gëm ko bëgg ko gëm ni genre dama si dama si tekki loolu dama ko gëmoon depuis 2013 ba may nekk tailleur loolu sama patron sax mën na ma seede ki ma jàngal ma man man man su ma su ma zéewoon 300 ba gagné benn 30 000 sa semaine boobu doon mu ko liggéey ñoom mën nañ ma seede dama leen waxoon ni que man ak nu muy mënti demee man damay tekk si pari foot maanaam dama si gagné moom xaalis moom dama ko si am loolu moom dafa nekk loo xam ne ma yàgg wax la quoi lu ma yàgg gëm la secret waaw bëri ñu ngi joué mais melu nuñu saali doonuñ ci millionnaire waaw yàlla la rek xam nga ndimbalu yàlla ànd ak coono comme ni ma la ko waxee mais au moins li ma mën maa ngi koy def li ma mën mooy maa ngi jël li la xam te ni que moom laay gagné di ko dugal si telegram donc ñi la xam te ñëpp ñu ngi may suivre ñi nekk sama telegram ñëpp mën naa wax ne que tey li may gagné ñu ngi koy gagné parce que lépp lu ma joué avant match daw dama koy dugal su ma ko dugalee ñoom dañ koy gis lu si nekk li sa wërsëg nekk nga lekk comme semaine bi ñu passé maa ngi dugal benn code teg si man 2 millions mais gis nit boo xam te ni que teg na si 900000 presque gagné na plus de 3 millions 600 donc xam nga loolu wërsëg moom la donc mi may féliciter mi may ñaanal mais genre am na ay moromam moo bëgg-bëgg lu bu ma amoon gëmoon na dama si am dara après yàlla fekk si ma si après maa ngi sant yàlla quoi vraiment. lan mooy projet yi. waaw ñu ñoo ngi si daal ñoo ngi si parce que. parce que jeunes yi la topp. Euh, toppee wuñu la toppee wuñu la neen. war nga taxawal dara loo xam ne ñoom dañ ciy yëngu. waaw comme comme comme comme comme comme li may wax chaque jour rek ñun man man sax laa xam naa fi ma jóge maa lay expliquer sànq ni que pour pour ma pour ma woon su ma doon dem atelier dama doon jaar marché Castor. ñoo euh, ñu ñooñu ñu di dugg ma jël téyel leen seen bagage yi ñu fay may 200 ñu fay may 300 ma dajale loolu pour mën pour mën si ndékki ay yeneen jour donc foofu ma jaar ak li ma gis fi sama yaay daj boo xam te ne su ma jëloon tisi jàmbur war ko ñëw ñëw ma ko nit ki ñëw ne ma fay ko tisi yam ndax pare pare pare pare pare genre sama yaay ni mu si doon sonnee pour fay bor yooyu noonu xam nga donc du ma nangu delluwaat foofu vraiment euh, yéen ñi lay laajte par exemple ndax. maa ngi investir wala maa ngi dugal sama xaalis foo xam te ni mën na ma jural xaalis man dama leen di comprendre parce que loolu mooy wane ni que maanaam am nga loo leen ma bëggal te am nga foo leen xamante ni tey genre bëgg ngeen ma yegg fa am nga foo xamante ni leen ma dem fa. donc euh, maa ngi calcule loolu bu baax chaque jour loolu maa ngi koy def sama bopp parce que genre xaalis neex na neex boo xam xamante ni ko bis boo ko yorul si ngay xam njariñam donc ak fi ma toll nii am ay nit yoo xamante ni que tey dañoo yaakaar si man même bu dee deux personnes. donc man dinaa def lépp lu mu mën ba ñoo ñëw chaque jour seen i soxla bu ñuy ñëw di ko fekk si man donc investir mënul ñàkk. lan mooy sa dépense quotidienne boo xëyee ñaata ngay génn ne li mooy si dépense su saali. am na ci wéyu ba yow 5 ngay dépense woon. non loolu ay wax la rek <laughs> ay wax na de saa non loolu non loolu gaari gaari ñi. yoo xam ni ay yu sew la. non gaari ñi tooñ rek. ñaata ngay dépense waaw man moom wax dëgg si yàlla xaw ma vraiment mais daal genre su ma xëyee dinaa génne lu mu war a génne xam lu suukar lu nekk fu war a dugg mu dugg mais genre du ma nekk di calcul ay lii laay génne par jour wala lii wala laa non non man lu ñëw rek lu mu war a génne damay xam ne dafa war a génn ma génn ko après bu jaaxee jeex na ko. xaalis day xëcc jigéen yàq jigéen ñi. waaw non. duñ la bëgg sax xam nga xam nga xam nga. xam nga xam nga xam nga xam nga nit boo xam ne genre da nga nekk si réseau bi di dem si soirée yi ku nekk di la gis mooy li mu wax sànq rek façon nit bu nekk di nga ko gis waaye man maay nit boo xamante ni kii nit mënu ma dugal si lu ma bëggul nit mënu ma def loolu ma buggul lépp lu ma def rek daf fekk ma bëgg ko comprendre donc euh, nit bëgg dugg si man taxul mu dugg si man comprendre nga voilà mi ngi noonu quoi donc euh, jigéen ñi ñu ngi ñëw dëgg la mais genre nekkul loo xam te ni que tey lu nekk sama bopp la parce ñoom ñëpp bu ñëwee tamit aussi taxul ñu am lu ñu bëgg. waaw xaritoo lañ mën a yem wala bu weesoo loolu jeex na quoi. merci Saliou. waaw kontaan naa. joyeux anniversaire. merci beaucoup mon frère ok.